dal leen ak jàmm mbokku internet yi chaîne football TV nii naa leen bu baax jeex leen di am mbégte saa su ne defal leen vidéo gis naa ne kontaan ngeen si euh, vidéo bi ma def sànq donc euh, ñu bëri ñu ngi rek réclame ma koy defee nii souvent donc euh, comme que ni ngeen ko bëggee ay information Europe tamit gis naa ne a ma koy demandé bu baax neex na leen donc boo leen koy defal tout le temps di ay xibaar yu xamante ne dinaa ko booleeg tamit info sénégalais yi un peu donc mbokk yi tey xibaar dama koy dooree fii di Chelsea Chelsea dafa bëgg kii Chelsea dafa bëgg a jaay kii di Aubameyang d'accueillir là donc euh, du coup nag Atlético de Madrid dafa dañoo bëgg a jël ñaari joueurs yi jox ko Atlético de Madrid parce que Atlético de Madrid euh, dafa bëgg ñaari joueurs yooyu da doon laaj. ci mercato yi weesu nii noonu lañ ko mën a waxee léegi nag dañoo bëgg jël ñaari joueurs yooyu noonu bu ko defee ñu mën a am Joao Félix xam Joao Félix dafa seer xam donc pour wàññi prix bi ñu pare euh, am Joao Félix waa Chelsea ñoom moom man dañ seen i mbir jaaxal na ma quoi donc loolu waa Chelsea ñoo ko ñoo ñoo ko wax lii ñu mel nag euh, The Sun moo ko xamle taskatu xibaar bi ñu naan The Sun nekk foofu ci Angleterre. bu ñu avancé euh, bi nag léegi lañu war am nañu ko weddi Messi day dem Al Hilal maanaam équipe bi xamante ne jamono bi moo jël première championnat Arabie Saoudi euh, ñuy xeex ak euh, Al Nasser manam équipe bu euh, Cristiano Ronaldo sa sax def match nul du coup Al Hilal bi mo fait da fay 400 millions par an donc maintenant nak amna ñu ñu ñu information bi parce que papam après génn na néna instant yi ñu décision parce que wa Barça batay tey rêve le jour, mais on sait que Barça il faut que mu jaay Ben ben ben ben Rafinha 80 millions du côté de Newcastle pour avoir de l'argent et pour avoir le salaire bi xamante peut-être que Messi vu que c'est son club de cœur man na bessé euh, salaire pour mëna ñëwaat euh, fi di euh, Barça motax ñu bari ñu ñaan retrouvailles sa vie euh, Messi lu lu lu, lu mëna nekk la donc à, noter ça en tout cas Al Hilal bëgg na ko jënd demo nañ ben lèr na sax da fay dem taskoro xibaar yi né France je pense l'équipe foot mekto yépp dama publier c'est clair c'est c'est c'est fait day dem Arabie Saoudite vu que semaine dernière la fa xana demul Arabie Saoudite pour dem fa donc euh, y' a une part de vérité Il y' a une part de vérité ndax avons euh, les moyens pour euh, affaire bu dama plutôt Qui dit man information bu ma jaaxal sax moy 150 millions d'euros le wa mense United prêt pour pour en en Fati 150 millions d'euros euros taskatu xibaar bu ñu wax Mundo Deportivo moko monde xamale donc du taskatu xibaar bu ndaw fofu ci Espagne nee 150 millions d'euros mais waaw waaw waaw loolu dafa bëri gars yi xaw ma noo leen ko xalaat xam naa ne waa Barça instant ñoo ngi tàkkamtiku ndax temps yi faawatuñu Ansu Fati non mais damay toog ak ay gars yi non en Fati moom mooy loolu bi mu jógee si blessure ba tey da ngay ree ba donc 150 millions d'euros bëri nak nag bëri man ah waaw xam ne anglais yi mën nañu def ils sont ils sont prêts à faire euh, lu nekk pour pour am mais man je trouve que benn Manchester United ñu jënd ben Harry Kane actuellement am un attaquant de pointe même si Rashford fait le job moo gën jël benn 150 millions donte kii c'est un talent pur ñu man ñu nangul ko ko mais dafa bëri lool pour pour pour sa boy la en tout cas euh, loolu mën nañ ko wax. Euh, beneen information boo xam ne ma koy wax ba tey si euh, cette fois ci Barcelone am waa Barcelone seen priorité au milieu c'est Amrabat mooy international marocain bi bi nekk Fiorentina maintenant nak en cas de bu fekkee boobu dafa échec. am na benn joueur bu nekk fële Betis bi bokk sabali club ñuy wax Guido Rodriguez argentin la on parle de 40 millions d'euros waa Barcelone pare nañ pour teg seen 40 millions d'euros pour am ce joueur là donc loolu loolu loolu aussi tamit c'est c'est c'est à noter en tout cas c'est un c'est un bu xamante ne moo ngi euh, contrat am tax ko gudd li si des donc euh, ñoom pare nañ pour jël foofu boobu donte Amrabat mooy seen seen seen seen objectif numéro un. Euh, benen affaire bu xamantene ne dama wax Rafael euh, Raphaël Leao gis ngeen euh, dañoo war jouer Ligue des champions suba mais keur li xam nga muy derby milanais Inter de Milan ak Milan nak na narul jouer je pense que sax il est forfait donc il est forfait donc ce sera hyper compliqué pour pour Milan AC vu que suñu waji danger à tout moment qui day andi ji jeexasi défense xam nga donc défenseurs yi nga ma avec qui dit na la ko mëna a avec portugais avec accent portugais c'est pas la même chose donc ça boy là Raphaël Leao il a une vitesse il a une te il a am finition maanaam il a jàkkaarloo double. donc avec lui et sans lui c'est c'est différent Avoir voir derby milanais Ligue des Champions bi euh, nan lay mujj je pense qu'on a ces infos là bon maintenant, si si avez l'info qui Alves Alves Alves nous disons prison ñu dit viol euh, taskatu xibaar yu nekk Brésil ak Espagne génne nañu ay kii article comme quoi li muy daj foofu lu mu fay dund ñu ne Alves foofu noonu dañ koy traité de violeur d'homosexuel ñu ne moom tout le temps du guen tout le temps dafa triste quoi dafa dem ba xaw a jeex sax tout le temps mu ngi si kii bi euh, si ne si néegam wala si cellule non noonu laa ko mën a du guen bu guené rek ay lekk souvent dina génn dem la plupart du temps day toog di seen télé yenn sa gars yi sonal ko mu dem football un peu mais il est tellement triste la wax donc c'est dommage pour ce ce ce ce légende laa ko meuna a ñun ñep voilà euh, ñu ngi fàttaliku li mu def Barcelone li mu def euh, avant sax Séville li mu def Brésil donc tay ji guené nañ ko comme article donc li moo ko ay xibaar yu xam je pense que euh, waxna le concernant euh, li xamantene Europe la mën nañu un peu si sénégalais sénégalais yi li may njëkk wax mooy que Pape Ousmane sax veut va quitter euh, foofu ces Tanzanie gis ngeen ne dañoo toog en Ligue des champions équipe bu bu bu junior Samb moo moo leen kii moo leen toog moo leen toogloo d'ailleurs sax. pas Ousmane Sakho gis ñu ko c'est pas ndax dafa am ak problème ak équipe mais actuellement am na ay équipe yu nekk Afrique du Sud yu ko yu koy yu koy laaj mais je pense si si li ma xam jàpp naa ne ku méttu pas Ousmane Sakho il vise plus l'Europe que leneen xam boo xasee ba ñoom équipe nationale da nga naan fii bu ma fa bëggee duggaat foog ma dem Europe te Aliou Cissé mii cinq grands championnats yi moo ko intéressé xam nga donc bi may toj woowu ma ma xaw a tene nii mu woo ma mayuma temps de jeu donc est-ce que tey moo demee heure ak samay capacité sama agent li ma gëm loo mën na nekk te man gëm naa sama bopp moo tax moom pare na pour quitter fii euh, te équipe bi nag boobu dañ ko bëgg mais moom bëgg na def le tout tamit loolu te information la. information bu xamante ne koy wax mooy Cheikh Sidibé latéral bu bu bu latéral droit euh, bu bu kii di TFC xam donc wala euh, latéral gauche autant pour moi bu bu TFC Tëngéej moom TP Mazembe la waroon dem mais dafa mujjee yàqu. À ah, noter que euh, Alim Badr Fat, si je ne me trompe pas, TP Mazambi, da ko soxla TP Mazambi comme ni leen ko présenté équipe bu mag la équipe bu emblématique le foofu c'est Congo te dinañ la dinañ la fay xaaj bu weex donc ñoom bëgg nañu suñu seex bi mais dafa mujj capoté la ñu wax donc loolu c'est des informations yu xamante ne mën ko jox dernière information mën naa ko si cabaxal rek mooy Ilimane Ndiaye léegi laa ko gis avant may def vidéo bi que Tottenham euh, mu ngi sur le dossier pour l'avoir vu que xam nga xaw na leen rey nag Coupe d'Angleterre dugal bi biu jinné dëgg la fa dugal dribble teggi teggi ni may bal bi ci kay yi ñu ngi Tottenham aussi bëgg na kii di suñu gaynde bi Iliman Ndiaye donc mbokk yi lii laa amoon ay xibaar yu xamante ne franchement bëgg naa ko partager ak yéen euh, baa leen ci commentaire ngeen wax seen xalaat ak seen gis-gis ma jaajëfal leen wax leen ba beneen sur Senfootball TV.